BFM, Forum xamante ni euh, euh, musoon na bokk ci ñi ñu tuddee les femmes de la diaspora bi mu ñibbisee euh, bokk na ci suñuy njiit ndax jàmbaar gi mu doon alors kooku di soxna Naata Samb bi Bijou on l'a souvent reçu waxtaan ak moom ci parcours am mais bokk na ci jigéen ñi nga xam ne ni exemple la itam fii ci Sénégal comme quoi dañuy continuer bis bi ñu jigéen ñi dañuy continuer 8 mars bi donte tey le 9 mars. exactement Pape weer bi yëpp suñu weer la ñuy wane souvent xam naa ni leen indil ay femmes yoo xam ne c'est des c'est des c'est des femmes yoo xam ne mun nañ leen suivre comme exemple bu fekkente ne da nga nekk xale sax xamagoo lan nga war a mën a choisir war nga xool seen parcours pour xam ne yow fii ñu jaar mun nga fa jaar ba egsi fi ñu egsi wala fu ko raw donc euh, soxna Naata Somm nekk euh, madame Mbacké moom lañ demoon seeti pour euh, journée de la femme bi tey nag la ñuy jàllale élément moom juste revenir sur quelques dates ci moom 2008 mun nañ ko waxtaanee ndax bokk na ci defal ñi doon defal Obama def porte à porte di convaincre nit ñi pour ñu voter pour benn candidat moom ci la bokkoon en 2010 nag la ñibbi si Sénégal euh, commencé di liggéey ci FAISE actuellement ba 2017 mi ngi ci FAISE nag nekk fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais euh, de l'extérieur dañ leen di financé mu nekk nag di ko gérer comme ni mu waree je pense parce que Sénégalais de l'extérieur yëpp ku ci ñëw am projet sa xel ci moom lay dem donc ñu xool portrait am ñëwaat. sama jaar jàngee Dakar maa ngi jàngee Derklé 1 primaire euh, dem lycée Vanvo fa laa defee sama cycle secondaire dem université euh, Cheikh Anta Diop jàng foofu di am fa sama maîtrise en anglais donc euh, liggéey Sénégal fii donc liggéey naa fii après stage yi ma doon def ay institut britannique ak yooyu def naa quatre ans ENDA tiers monde donc liggéey ci benn programme bi ñuy wax ENDA 6 pro nga xam ne fa xamee luy liggéey administration en fait ak ONG def la tour du Sénégal nekkoon fa euh, coordonnatrice benn programme coordonnatrice euh, académique ma demee Amérique c'était en 98 ma def beneen masters ma demoon pour sax def MBA mais bi ma defee test mat yi mu metti ma defaat beneen masters en international développement et comparative education bu ma ko defee ma pare sama masters en 2000 ma commencé inscrire pour def sama doctorat entre temps j'ai eu un bon boulot euh, ce qui m'a permis ba léegi yeggalewu ma ko mais commencé naa ko ba xaajal ko ñu jël ma foofu ci benn institut bu ñuy wax institut of New Americans ci même institut bi 2000 ba bi ma fay jógee 2012 fa laa liggéey liggéey naa si yeneen structure pour xarmat mais foofu nekk naa fa conseiller académique nekk fa directeur académique ba nekk fa directeur général ma signé pour nekk volontaire ci campagne Obama 2008 ci réunion yi ñu doon def ci koñ bi ak ni ñu ma jàng ci américains yi ak ni ñuy bokkee ci seen réew kenn ku nekk xale mag ndaw ni ngay bëggee volontaire ma jàng foofu ne politique du dara lu dul def defar dara c'est l'art de vraiment changer gérer la vie te àdduna moom ñaari option rek nga am da ngay bokk ci ñu ñuy gérer wala nga bokk ci ñuy gérer wala nga toog defoo dara comme man j'ai toujours été active dans vraiment plein de choses lu may def toujours damay bëgg ñu jàng ma nekkee xale jàng dama ci mës bëgg brillante dama mës a dama mës a bëgg yu nga xam ne lu may def rek dama ciy dem à fond euh, donc bu ma toggee ma gis ne que man j'ai appelé cent personnes volontairement pour ñu voter Obama dont la plupart étaient des blancs Minnesota fi ma dëkk bi ma toogee ma xool ne euh, ñooñu noonu am na ñu ma convaincre tubaab bi ma njëkk dem këram di wax ko Obama daf ma dàq mais bi ma demee di waxtaan ak moom togg yaasa yóbbul ko ñuy waxtaan dem naa ba ñu nekk xarit donc dara nit ki da war a patient sa objectif nga topp ko ci laa jëlee nag wu politique mu góor mu jigéen nag ku nekk jóg bay sa waar mooy changer réew nit boo demee ba def constat ne lii doxul war nga def pour leneen dox taxawaay jigéen ci biir réew mi mooy sans jigéen ñi dara du dem sans jigéen dara du dox sur tous les plans sur le plan organisation développement familial jigéen mooy pilier wu société nation moo ko yor yàlla loolu la doon dogal deuxièmement sur le plan politique jigéen ñi dañu leen mës a teg ñoo xam ne dañu war a teg rek di taatu di teeru ay gan ak di wax xulu xeex loolu la ñu doon def mais léegi je pense que ñëpp conscient nañu président yi fi mujj yëpp ak ba suñu président le président de la Macky Sall conscientisé wu nañu ci jigéen parce que parité bi ñuy wax du dara lu dul xeex bu nit ñi xeex wax ne teg leen ma place bi mais damay wax toujours man ñu teg ma fi ma war a tegu moo ma gënal may xeex naan nañ ma fi teg dem nañu ba am prise de conscience le monde s'est réveillé que en 1946 nag dañuy wax ay waxu euh, Nations Unies li ñuy wax ni affaire droit de la femme Amérique la woon jigéen ñi foofu sax amuñu woon droit bi mais dem nañu ba toog xam ne ñun dañoo am rôle bu ñu war a jouer ñu xeex ko voilà waxtaan boobu nag ñu ngi ko séq ak euh, sunu kilifa googu di euh, soxna Naata Samb madame euh, Mbacké yàgg dox ci fi diaspora ba ñu dénk ko loolee nga xam ne ñu defe naa képp ku demoon ba ñëw wala képp ku nekk feneen te doon sénégalais xam nga njëriñu Faiza. Mhm. exactement Pape Cheikh donc mu nekk femme boo xamante ne comme ni ma ko waxee tout à l'heure mun nañ ko jël comme exemple de de réussite exemple boo xamante ne c'est à suivre. Mhm. et puis rappeler juste sénégalais de yi que nga xamante ne da nga dem nekk foofu. wala nga ñibbi si fii nii au Sénégal l'essentiel mooy nga am preuve que yow demoon nga à bu fekkee am nga projet mun nga dem nga seeti leen ñu aide la ci ay financement ba nga mën a réaliser li nga bëgg def. surtout le fait que mu ñëw retour bi dafa am dafa am solo parce que parcours mi ngi wax ni dafa dafa dafa li ko li ko gën a euh, interpellé mooy dafa ñëwoon vacances Sénégal. gis euh, inégalité sociale bi ñii xaw am torop ñii nga xamante ne nekk feneen mu ne jaratul def defalee dara il faut que ma ñëw retourner fii xool lan lañ mën a apporter surtout place yu jigéen ñi ci yenn ci ci société bi mu nekk lu am solo di insister toujours ñi nekk euh, à l'extérieur que ni bon on force pas de venir euh, rejoindre le Sénégal parce que doo leen def dara mais plutôt bu leen ñëwee fii au moins ngeen xool yenn projet yi nga xamante ne apporter pour la pour la jeunesse sénégalaise dara mm, leen ci ba ñu tëj leen te a énormément de choses a énormément de choses à faire au Sénégal. <laughs> <laughs> <laughs> allez-y a beaucoup de choses à faire a toi de choses la ñuy wax ñun tout le temps y a tellement de choses à faire mais après parallèlement ku mën a tukki moom tukkil.